Bienvenue sur Salam Vision.

Parlons de la situation à Hambourg, le jeune Doudou Faye euh, qui avait sous les Hautes-Atlantiques euh, en allant vers l'Espagne. Euh, les deux euh, congrégationnaires ont été euh, seront établis ce matin euh, par le procureur de la République de Bourg. Et ce sont qui sont à l'origine du décès de ce jeune enfant. Quatre universitaires du Diop de Bombay, les étudiants au Spleton, vont décréter une grève pour euh, ficher le comportement et le mutisme des sociétés face à leur situation. Euh, de la situation toujours sur l'actualité euh, nationale. Le directeur général d'ANEJ, Agence nationale pour l'emploi des jeunes, euh, continue sa dans la région du Sénégal pour sensibiliser et conscientiser les jeunes euh, sur le chômage et l'emploi des jeunes. prestation de serment ce matin au Congo-Brazzaville du président Denis Sassou Nguesso, c'est son quatrième en présence de plusieurs chefs africains dont le président euh, Macky Sall a fait le déplacement. Enfin, euh, la communauté internationale se souviendra euh, de Thomas Sankara. Son, euh, 16 personnes ont été appréhendées qui sont à l'origine, euh, disons, de sa mort euh, qui a été précipitée. Qui cette audience aura bel dans quelques jours. mbokk asalaamaaleykum ñu tënk si kàllaama Kocc Barma suñu mbokku euh, jullit ci nag euh, ëllëg dañuy tàmbale koor am na ñoo xam nag tàmbale nañu ko tey muy Arabie Saoudite yenn euh, dëkk yi si diwaanu àdduna bi. li jëm si mbirum xibaar xale bi nga xam faatoon na ko doon jël gaal dem fële ca Espagne di bu ñu fay wala fukki ñaar. Euh, ñi nga xam ne ñooy bon xale nag te fekk teew leen na ko euh, tey nañu déglu fële ci tribunal bumbu euh, fële ñu doxantu fële ci daara yi kawe na bu université Bambey étudiants yi fase nag banque seen i loxo di ñawlu doxalinu autorité université ginnaaw bu ñu amee ay jiir fi jax ay jafe-jafe kenn faru leen tey kenn faru leen ëllëg di leen si mbirum xibaar euh, xam ngeen ni euh, li nga xam ne que mooy mbirum euh, politique Ousmane Sonko ñi woo kujje politique bi opposition bi ñu booloo jëlee fi xam ne mooy nguur gi xam président Sall moo koy jiite. mbokk yi bitim réew la ñu doxantu ca Congo Brazza ñoom nag tey nga xam mooy Denis Sassou Nguesso am ñeenteelu mandat tey nag lay waat si teewaay conseil constitutionnel ay chefs d'État africains yu nañ fa teew ni président Macky Sall yu ma ñetteelu mandat président Denis Sassou Nguesso ñu ngi dajee fële Burkina Faso ginnaaw bu ñu ko boobee am na tey fanweer ak ñett yu Thomas Sankara nekkoon président bu Burkina Faso euh, tuumal ci ay doomu adama yu ay officier ay sous-officier ku ni Blaise Compaoré nekkoon président bu Burkina Faso boobee dañ leen déglu fan yi di ñëw mbokk yéen xibaar incha allah ëllëg jamono